plié yal na ko yàlla dafal jàmm ca dëkku Europe yi nga xam ne nag euh, suñ bi mu ngi fay waaju jublu waaye mbégte contentement euh, am na ci suñu diggante mbokk yi wax na leen ko ne leen ne fan yëpp gis nañu ne euh, du soxor ndax liggéey moom bu amee rek dañ koy rafetlu Iran Ndaw incha allah Télé Futurs du yàgg sax dina am suñu benn Iran Ndaw ñun tamit xam naa dañ ko gis waaye nag ngeen jàpp ne Iran Ndao mu ngi def liggéey bu rafet jëmale ko ci li xam ne mooy wane nu ñuy jàppee nu wane nu ñuy jullee ak war a fi julli bu la fekkee ci gaal bu la fekkee ci kaw garab bu la fekkee ci fu ti nekk léegi nag Iran Ndao loolu yëpp mu ngi koy wax d'accord c'est bien d'accord nañu rafet na te am nañu kon nangu ne loolu mooy yoon bi ndax leera bi am na solo waaye léegi bu fekkee ne danga nekk ci camion de tournage nekk Iran ànd ak ay technicien euh, Sen TV dem parc Niokolo Koba far oto ba paan ca yoon bu parc Niokoloba bi nga xam ne fa la gaynde bukki dëkk nan la jullit bi war a comporté woo bu fekkee ne gaynde dafa ñëw taxaw nañu seeti Iran bu fekkee ne eggul ci thème boobu ñun thème boobu danañ ko ko eggalil ndax xam nañ ne Iran Ndao wër-wërloo bi yëpp ca gaynde nga war a mujjee te ñeme goo def gaynde ñu dem dafa loola ko dama wax ne ana Anta Anta taxawal na le ba ma woo leen des naa fi julli ci kaw jàkk def julli ci gaal def julli ci kaw oto ak ci garab léegi nag ñu ngi ni tafsir mabba bu may wax del déglu hôpital lalu hôpital sax opération def nañ ko ci julli ñu ngi nii ci parc Niokolo-Koba ñu ngi ci parc niokolo waxtu timis jot na ànd nañu ak kilifa yi bugaan jox ñu oto ne nañu dem waaraate ji war a dem Kédougou càng ca parc Niokolo-Koba Germaine taxawal caméra yëpp taxaw ñu war a julli julli jot ayca Anta kaay taxawal nii gis ngeen Anta mooy caméraman bi gis nga dafa yooy ñi yooy yi ñooy féete ci kaw kan la kii Mbaba Mbaba kaay ah Madani Madani kaay Mbaba sumil dàll yi nii taxawal na le Mbaba yow xaw nga am tuuti yaram gaynde bi bu ñëwee nee ngay taxawee protéger imam imam Salif kaay Madani kaay Madani wéril ñii équipe équipe tournage bi la da di gaaw nag ndax ci àll nañ nekk gaaw leen. da ngeen di gaaw ndox ci àll lañ nekk bu ñu taxawalee nañ ko jekkal jigéen ñi ci ginnaaw baral noonu kaay madaani mbabba bu ñu taxawalee nii ba nekk ci tournage oto ba paan timis jot ba ñu lalee yow mbabba del xool fële xam nga waaju ko ñu julli del bàyyi xel ca ndeyjoor yow del xool sa càmmoñ yow nag bu fekkee ab jaan buy jóge ca xaw xool leen maa ngi taxaw na leer nag imaam bi bu fekkee ne imaam bu mel na man la xam nga am naa suux macha allah boo gisee gaynde bi oq ma ma njëkk a daw lu mel ne kilomètre ngeen di soog a ñëw yaa may dégg Pape Cheikh Diallo du ma sa morom yaa may dégg boo seenee gaynde nday joor ne boobu taxaw looguma guma nodduguma boo seenee gaynde càmmoñ na mm, su mm, mm. ko defee boole ma ko wanee ma xool muy gaynde am naa yaram bàyyi leen ma ma daw ma daw lu mel ne wat waxtu ngeen di soog a ay ca ñu ngi ci àll bi ñu ngi ci àll bi taxawal nañu mu ngi nii dañuy ese rek mbàbba yi yàlla bu yàlla am dañu koy natt rek ñu ngi ci àll bi dañ koy natt rek kon kon ñu taxawal jàpp yi xool leen nday joor waaye xel bi yëpp na ne ci julli bi waaye bàyyi leen xel ca gaynde yi bu fekkee ñëw na ay ca ku gis gaynde rek bu fekkee mbàbba gaynde gaa ngi ñëw léegi okk ma xool defal nànk wuy sama ndey loo gis taxaw noonu julli gu ma de waxu gu ma saar taxawal xam nga dañoo taxawal xam nga dañoo taxawal nii defal waaw kay woo defee noonu yow gis nga ko wóor na la seede nga ko gis nga gaynde gi yow wóor na la gis nga gaynde gi da ngeen may bàyyi nag ma def nii taxaw leen rek de da ngeen di bàyyi ma def nii tudd leen yàlla ak tudd leen yàlla comme que dama diis te bu ma yéexee génn mën nañuy jàpp rey ma doo leen am kenn ku leen jiite ndax bu dee mbàbbar rek du leen jiite bu dee yow la munoo ko bu dee yow la munoo ko ab jigéen du jiite góor dangeen ngeen di yoxal imaam mu def nii xool wóor ne ndax wax ji di waxu seytaane muy gaynde mu ne wóor